te ne moo du ci bu bees bu mu waa génnee ñu naan ko ab lébu Moustapha pourquoi ab lébu. waaw nag titre la boo xamante ne aussi titre bu ma marqué la parce que nit je pense que looy def rek njëkkee ko fu nga dëkk. Mhm. njëkkee ko ci sa bopp njëkkee ko ci askan bi nga bokk. Mhm. Eh, vraiment dañ di ay doomu lébu nag juddoo juddoo Tëngéej may aussi nuyuwaa Tëngéej bu baax a baax parce que tey nit lu mu am rek na ko gërëmee fu mu dëkk. Mhm. Eh, ab lébu bi nag. maanaam mi ngi mi ngi mi ngi ñëwee ci que ne euh, bi ñuy def son bi. Mm-hmm. maanaam son bi lébu kese la tuddoon mais euh, par la suite ci la suma papa Ndiawar ma koy nuyuwaal aussi moom mu ne carrément son bi. buñ ko def lébu kese. Mm-hmm. non non suma maanaam kooku moom maanaam suma ay textes yu bari su ma ko bindee moom laay jox mu corriger ma wala parfois daf may proposer. mu ne ma mais pourquoi lébu bi kese. Mm-hmm. pour pourquoi la moo tax mënoo ko def ab lébu parce que maanaam titre boo koy titre da ngay xool parti bi gën a am solo. Mhm. nga titre ko son bu nekk d' accord y' a pas de souci maanaam li tax mu neex moom mooy. Mhm. titre bi fi ñu koy jëlee dañ ciy rendre hommage ñi nga xamante ne maanaam ñooy mool parce que boo xoolee ñoom ñu ngi mettre seen vie en danger. Mhm. di dugg ci biir géej gi di dem dëkk ak dëkk. dafa def ay weer parfois ay jours et rien que pour rek. napp jën indi ñun ñun ñu lekk mhm. te boobu ñun ñu ngi suñu ay kër tëdd di nelaw ku nekk yaa ngi nekk say occupation ñoom aussi ñu ngi nekk si biir géej gi di la wutal yow loo lekk kon ñooñu sargal leen lu war la et titre bi foofu la jógee ci biir mool yi et mu nekk tur bu ma marqué nag nekk aussi son boo xamante ne son bu la parce que dama ci way sama askan li mhm. ci rendre hommage aussi koo xamante ne maanaam dafay daj lu nekk ndax man mhm. muy Abdoulaye Fall nekk suma parrain nekk sama pap nekk sama xarit aussi lu ne mu koy daj ndax man lu ne mu koy sonn ndax man. et eh, ma koy nuyuwaale si. <laughs> alors balaa ñoo mën a xuus peut-être dañuy bàyyi téléspectateurs yi ñu découvrir ak ñun son bi nga xamante ne moo di ab euh, lébu maam si di si c'est bon ñu déglu ab lébu. Euh, très bien dinañ ñëw ci euh, son bi euh, ci kanam tuuti Moustapha du du du du yàgg dara alors Fama Moustapha est là pour les actualités musicales. tout à fait. Mhm. ab mhm. lébu wax na ko léegi nii même si ba ma ko sitaanee loolu laa ci jàngat mhm. ñëpp xam nañ ne Moustapha ab lébu la doomu tëngéej li koy waxee juróom-ñaari fukki penc ak ñaari <laughs> exactement bokk nga ci donc tey artiste bu ci nekk boo rendrewul hommage ki nga xam te ne moom mooy sa ki lay inspiré mhm. da ngay rendre hommage ki nga xamante ne moom mooy sa askan mhm. wala nga rendre hommage sa sëriñ ba après nag ñu tënk lépp nag daal di koy rendre hommage gën di mindeef rek mhm. ndax wéykat bu ci nekk sallallahu alayhi wa sallam day ñaan wéy ki nga xamante ne moom mooy sang-sang yi euh, son bi nag mu nekk son bu neex da nga ko waxee euh, moo li nga ci rendre hommage euh, ñoom nga xamante ne li ñuy daj bëri na te ko xam ab nappkat xam ne ab lébu ñoom ñooy bañkat yi ay jàmbaar lañu donc tey la rek laa ci mën et du ma ci sori lenn laa ciy wax. <laughs> Euh, Jeanne Marina dañoo invité ndaanaan xale bu mën a wëy. Mhm. boo am te ne comme li ma koy waxee rek wëyantu dafa bëri léegi Sénégal ak mhm. génne benn son mu def it. Mhm. nga yaakaar ne yaa poñe réew mi. dafa bëri léegi waaye talent pur. dafa commencé rare. ñii moom daf ko doon dina ci wax tout à l'heure. woy fan nga ko jëlee fan nga ko doonee gis nañ la seen petit gàlle sa carrière sa parcours yooyu noonu yëpp mais tey euh, musique fan nga ko doondee ndax dafa mel ni sa biir deret ku xam <laughs> musique dëgg nag moo lay dégg xam ne ne ko mën a woy nga waaw man man paaka ñaari boor laa comment parce que boo xoolee ci suma côté yaay Baye Mbaye doon na mbay bi daan woowee sëñ Babacar ak ki jur suma yaay borom day ak baay ci sama côté papa baj géwël te ngeej mooy sama maam ah. teg ci tamit ndey ngoom maam bi loolu de sama maam kon man xanaa su ma woyul damaa tooñ. <laughs> boo woyul tooñ yàgg yàgg dëgg daal. Mhm. <laughs> ah mais mais nag parfois parfois tu vois des gens yoo xamante ne maanaam dañ lay critiquer de par way. Mhm. yow woyoo woy xale lii ma nag ah. mais nag ku juddoo ci keppaar gi. dëgg la te yaa de yaa de way yoo xamante ne yow maanaam waru la. Mm-hmm. te maanaam dafa am bët boo xamante ne à chaque fois nit yi dañ ma koy xoolee. muy ban que ne man damay yegg benn niveau bi si way mais du ñun ñu koy waxal suñu bopp. Mm-hmm. maanaam nit boo nekkee ci dara. Mm-hmm. bàyyi man parfois dama naan man maanaam jeune maanaam génération bi nga xamante ne ñooy ñëw nii. Hmm. xeetu way yi ñuy def man duma ci bokk. Hmm. ok parce que man way ma pour way boo xamante ne da nga koy way 2 mois 3 mois nit yi déglu ko snap ko maanaam mu def. it tuuti après way bi disparaître. dëgg la maanaam tonton Ibou daf ma wax euh, wax bu am solo. Hmm. ma koy nuyuwaat aussi waay dane ma dane ma artiste. ñi nga xamante ne maanaam seen seen seen seen seen seen taxawaay dëgërul. mooy mm-hmm. artistes yi nga xamante ne way pour ay nombre de vues wala dañuy way pour maanaam nit yi déglu ko le musique business deux mois trois mois mm-hmm. ma quatre ans mm-hmm. et ba tey mi ngi existé parce que li koy wane mooy nit booy liggéey maanaam liggéey loo xamante ne maanaam à long terme lay doon quoi parce que boo ko liggéeyee nit yi dañu koy déglu tout le temps tout le temps maanaam day nekk si ñoom <laughs> dëgg la mais. Euh, Moustapha li muy way dañ ko koy bindal wala sa inspiration bopp la. waaye waaye parce que nag nit ki nekk sa xel doy la. Mhm. te tey je pense que am na ñoo xamante ne maanaam. olof dafay wax wax bu am solo mooy ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la waroon fi ngay jaar lu ñu bind suñuy ay texte bind suñuy am nañ koo xamante ne suñu paree moom nañ koy jox mu rectifier ko mhm. parce que tey suñu xel kese doy ñu mhm. parce que ay xale lañ bien vrai que ay xale lañ xam nañ lu ñu bëgg mën nañu bindal suñu bopp mais parfois maanaam am na yenn qualité texte yoo xamante ne ñun en personne dinañ ko mën a bind. Mhm. mais boo ko bindee faa nga jokkoo koo xamante ne. agencé moo koy gérer quoi rectifier <laughs> euh, dëgg la certes woyo woyu xale justifié nga ko nee nga que euh, qualité. Mhm. ngay ngay def. Mhm. woyo à long terme ngay woyo woyo pour léegi mais d'accord naa ci mais est-ce que tam d'une part doo xaw woy tuuti pour mën a conquérir créer sa benn monde. créer sa sa sa groupe boo xamante ne néanmoins benn son lay doon rek boo ñuy offrir mu nekk bu fayee garaawul. mais ah. tey nga génnee tamit leneen loo xamante ne dañuy xam ne ne Moustapha mii boo ko woowee fii mu ñëw. Mm-hmm. waaye boo ko woowee ci buuxante ay moromam. mën na ci tamit parce que loolu ouais. exactement ngeen mën a def ay duo featuring nga am tamit sa communauté. Mm-hmm. si bien sûr parce que. <laughs> <laughs> waa bien sûr nag man maa ngi si lancé boobu maa ngi ànd ak samay woon ah mais sauf que xam nga xam nga parfois mhm. maanaam man dama mas am benn esprit mhm. mooy maanaam man ñaan yi ñoo mas a nekk sama référence ci musique kan muy Youssou Ndour ak Momo Dieng dégg nga ba tey yàlla def ma nekk si ginnaaw mu di ko aaw ah, parce que tey jii nii musique boo ciy jël référence jël ci koo xamante ne ma nga ay wéykat nag <laughs> ñu mën a wéy nga tàmm nekkee defoo te Moussa Faye day rek joli kër day rey rek. ah mais àdduna amul solo nii da ngay neex deret parce que tey li tax nit yi la gis di la bëgg. maanaam ci yow lay nekk. donc yaa ngi pare featuring ak des chanteurs de ta génération. waaw mhm. euh, ak ñëpp. kon ñu ko ci été bi. bien sûr. ba pare nag été bi yu doy waaree ñëw de. ah oui waaw waaw oui. d'ailleurs dinañ ci waxtaan Jeanne peut-être question. Ah ah. Euh, Prince Al kii seen petit gàlle lan la leen jàngal. loolu di nga ci ñëw. Euh, presse à lan la la apporté parce que ci semaine bi dañu gis euh, ñu bëri ñu ne génne nañ fa. Mm-hmm. même si leeruñu ndax. Mm-hmm. am na fiabilité ou pas j'ai essayé démb jéem a xool. source bi euh, pour pour pour mën a sukkandiku mais ci li ñu jotagum for rek dara leeruñu ci ay décembre maa ngi gis ñu naan quitté na même si loolu gëw ma ko sax. Aïcha Koné nee nañ dem na te. ni ñu gisee sorti clipam bi nga xam seen dinañ ci ñëw tout euh, xaw na génn tuuti lu presse art ci ay code presse art donc tey gis nañu Pape Diouf bu fa jóge dem mhm. gisoon nañ un titi bu demoon dellu siwaat mhm. donc dafa mel ni presse art day day tëj da lay ubbi waaye lu mu lay tëjee ëpp yow yaa ngi xalaat sa avenir foofu noonu ak naka nga gisee euh, départ yi nii ñuy nga ne dégg nañ ko parce que Fama dogguma la balaa muy tontu on voit même sur les réseaux nit yi di wax ni ko Prince Art dafay suul ndaanaan exactement d'après les Sénégalais d'après dafay suul ndaanaan c'est-à-dire xam nga xam nga nit ku nekk ak ni ngay liggéeyee te Prince Art dafa am ay normalité yoo xamante ne noonu lañuy liggéeyee maanaam mooy patience gis nga àdduna dans la vie looy def rek faa nga maanaam bu la bu la fëkk yóbbu mhm. man de man wax dëgg fa ne yàlla fa ko yóbbu ma parce que man nekkuma nekkuma nit boo nga xamante ne maanaam damay damay damay damay ñëw rek juste maanaam pour bëgg am lépp. maanaam ah, gis nga àdduna fu nekk nga nekk fa suñu borom rek a mën. te te maanaam ñoom carrière la ñuy liggéey ci yow. Mhm. te gis nga carrière nag ku amul patience mënu ko def. waaw yow da am salaire parce que soo nekk carrière tamit da li nga yaakaar ci lii ah? non non gis nga nit. maanaam kii yaakaar mooy ki nga xamante ne xëy na xëy léppam sotti mhm. mais tey nag yaakaar day fekk nga nag patience parce que tey même sunu borom boo ko ñaanee du ñëw si saa si may la mhm. suñu borom boo ko ñaanee maanaam dina dina toog di la xool ba xam ndax yow mii ko am patience nga wala moo patience mhm, te àdduna lépp patience moo koy def te musique dafa laaj patience surtout ça